fans yi euh, di nuyu fans euh, Wally Ballago Seck di nuyu fans euh, Dipi di jéggalu nag ci li nga xamante ni moom moo xew waroon joué li ñu naan jaam ak pexeem yàlla ak dogalam suñu borom bi nag dogal na ne taw bi bëri na ndax yu bëri na kenn amul foo jaar mais maa ngi jéggalu bu baax di jéggalu ci turu Wally di jéggalu ci turu Viviane di jéggalu ci turu Dip ak organisateurs yi